Euh, mesdames et messieurs, nous sommes avec euh, monsieur tombala Wow. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait quoi euh, d'être euh, là en ce moment le 2 Eh ben ça fait est prêt. Et j'ai envie de vous dire il y a la température qui commence à chauffer. <laughs> Voilà. Alors de temps de show j'ai un sketch avec Marfous. J'ai un autre avec Singom et Général. et je vais faire quelques petites apparitions à gauche, à droite. Donc ça va C'est toujours chaud, le samba show. voilà mbokk yi ñu ngi ak euh, benn docteur boo xamante ne man damay jaawale entre ngóor ak docteur kan la ci. docteur médecin légiste. légiste. tu parles avec un médecin légiste qui fait euh, l'autopsie. Euh, pour faire l'autopsie. On fait l'autopsie à des personnes mortes. ça doit être compliqué hein, de, de, de, faire l'autopsie. Vous avez l'habitude de le faire eh Oui, euh, j'ai eu mes diplômes euh, sur ce travail. Et moi, j'ai l'habitude de faire l'autopsie avec des personnes vivantes. Vivants Oui. Moi, je fais l'autopsie avec des personnes vivantes. Moi, je suis choqué là. Mm -hmm. Si tu veux, je vais te faire autopsie. Ah, on va essayer juste. Ça fait quoi d'être euh, là euh, à, ce, à, à, cet événement-là Ça fait quoi le, euh, le, directeur Samba, c'est euh, mon grand frère. Quand il organise ça, et euh, il m'invite. Euh, je serai là avec du plaisir pour me présenter en tant que médecin légiste. En tant que médecin légiste. Et vous associez, vous les jeunes, vous les jeunes, comment dirais-je, jeunes artistes, ça fait quoi ça nous fait du bon parce que ça c'est pas c'est pas c'est pas je peux dire c'est pas euh, c'est pas facile et de faire rassembler toutes les jeunes euh, comédiens euh, pour venir ici au Grand Théâtre pour faire du bonheur aux gens c'est pas du tout facile. Hmm. mais ñu ci olof. Hmm. mais li ci garaaw médecin légiste nga bëgg a taxawee. Hmm. mooy nga xamante ne ku ku génn àdduna ba pare ah, ñu xool lu ko lu rey. Hmm. ci loolu ngeen di yëngu. waaw man nee naa la damay autopsie nit kuy dund. nit kuy dund. nit kuy dund laay autopsie kii nga gis ci sama ginnaaw mooy sama chef man maay assistant am. kon da ngay dëggal ni loolu. bah oui. oui oui c'est vrai je suis Doudou Sène médecin légiste et supérieur de Gorée Sène c'est les personnes vivantes que vous, euh, vous Si tu veux, on peut faire. Non, en fait, euh, on autopsie des personnes euh, mortes, des personnes qui sont mortes. Mais en fait, aujourd'hui, on nous a invités ici et j'ai vu des personnes vivantes. Donc, on n'a pas le choix, on va les autopsier. à euh, changer de, de stratégie et de, essayer de changer de... Vous savez, vous savez, avec les personnes vivantes, il n'y a pas de métier passionnant, à part la gynécologie, où oh, tu peux tout toucher, tu peux tout gratter, tu vois. Mais nous, nous avons une autre passion qui n'est pas le sexe. C'est quoi Sauver... Non, on ne sauve pas, nous, avant de venir chez nous. Tu, es, tu as déjà perdu la vie, en fait. Mais aujourd'hui, une, une, personne aura la chance de faire une autopsie et de repartir avec ses résultats. Oui, c'est ça. En fait, tu n'as jamais tes résultats avec l'autopsie. C'est ta famille qui les a. Mais aujourd'hui, la personne aura ses résultats. En tout cas, euh, en Peut-être, un, cadavre. On sait pas. Mais nous, tous, voyons tous comme des cadavres ce soir. hélas hélas kay kay ngi delloo siyaar Kumba Gawlo Seck mais laa doon tere c'est que bi dafa dafa garaaw quoi. mais jaw man li ma jaaxal mooy dafa mel ni euh, je sais pas bi commencé yow nga mel ni ku euh, man jëlee dans le sang. man mën nañ fekk fii ma toog fi ma toog nii di comédie. barki sëñ Bamba aw ma pression ñëw fii su ma ñëwee fii fii day yëngu. mais Diaw laxal nga laxal nga il s'appelle comment encore le jeune frère de de Alioune Sall laxal nga Alioune Sall mënoo bàyyi Alioune Sall. lakkal nañ Alioune ñun ñëpp bu leen ma ko ji bu leen jël toor bi yëpp jox ma ko xam nga bu 400000 yi génnoon tey doo ma ne yow la wax ñun ñëpp ñun ñëpp ku nekk di nga jot sa bos. man man may naa sama bos. maye nga sa bos man nag mayewu ma ko ndax buñ ma ko joxoon léegi ma jël il faut que terminaison bi nekk 400000. waaw mais man dama dama dama dama dee dee ba may commencé. dama amoon habitude video bu may def moom il faut ma lancer benn message moom soo amul message moom vidéo du am moom duma toog di reetaanloo nit ñi te du am benn message bu captivant boo xam nit ñi dañ koy bàyyi xel. mais y a combien de messages captivants yoo xamante ne mënoon nga kaa lancer. pourquoi moo tax. Alioune Sall Sadio Mané nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee c'est pas d'actualité. man dama daan def hashtag ba Sadio Mané Ballon d'Or publication bu mu dugal def si hashtag Sadio Mané Ballon d'Or dama ko defa def ba FIFA boolew ko si trois yi moom mën a noppalu. man actualité rek. Hmm. alors inspiration bi lan la créativité bi lan la à chaque fois actualité bi da nga ko jéem a musique euh, liggéey bi euh, nu mu demee. waaw mais c'est un travail très facile donc dama koy def naturellement su ma gisee benn affaire dama koy relayer de façon très comique de façon très naturelle jàllale si ay message yoo xam yu important la mais neex gi nag ci nit lay ne. neex gi yàlla dafa ne dafa dafa def mu nekk ci man mënu ma ci dara waa dafa def ci man ma neex ku kenn mënu si dara. mais dem studio affaire yooyu noonu. Mhm. yomboon na nga inspiré wu ne da ngay dem studio di reprendre yenn son yi teg ci li ngay bëgg a def. fois bi ma duggee studio studio laay jaañ la woon dama pare laa jaañ ne ma macha allah. ne ma li nga prise nii am na ay waykat fii mënuñu ko. donc dafa doon affaire yoo xamante ni naturellement day ñëw. ok Dakar fait sa comédie euh, ñu dugal leen ci yéen jeunes artistes yi noonu ko gisee. waaw mais ñu def lu dul rafetlu ko parce que daaw dañ miser woon si artistes yi nga xamante ni ñoo jógee à l'étranger ren ñu miser si artistes locaux yi nga xam ñoo nekk fii nit ñi miin nañ leen si télé yi ak internet bi donc duñ def lu dul rafetlu lool loolu donner le maximum fexe ba saal bi neex ba bu déwénee kenn du woote kenn du woo kenn di ko indi fii ndaxte li suñu festival la. boo demee ba Marrakech du la. Hmm. quiconque Jamel mii doomu dëkk bi mooy priorité donc pourquoi pas ñun après keneen waaw. Baye maa ngi siyaar. ngi fi maa ngi sant alhamdulilah. Baye dafa doo wàccee sa tànk Baye. Ah. maa ko naan. Ah, Baye doo wax ñun correctement. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum ah. leen bégee fan si yëpp. waaw tama damaa weng nii laa judduwaale. Equivox. Equi. Equivox Equivox yéen a ngi def lu nice maa ngi gis ñaari boy yu garaaw di ci Dora. mi ngi nice liggéey mi ngi nice maa ngi ci bég. mais naka mu naka Thiès. mi ngi fay neex rek. du koy dund aar bi. yaa ma gën a xam du koy dund bu baax a baax a baax. Kër Baye fu mu toll. Kër Baye troisième saison ñu ngi ci wàccaay bi nag ñu ngi ci léegi. waaw parce que am na borom ba pare dañ koy waajal dóor incha allah waaw. gisoon nañu euh, euh, première saison bi voilà bi ci topp aussi bàyyi dafa dafa nekkoon mag bu réew mag boo xamante ne bu bu kenn mënul canaliser. Ah, ah, ah. bii nii même même même chose la bàyyi di continuer wala. non bàyyi mënut a yaru. man réew gi ci la réew gi judduwaale la dama. waaw Dakar sa comédie. ñu gis ni dañoo euh, dañ leen jël yenn jeunes artistes yi. Mm. ñu boole leen ci. Hmm? mélanger la ak artistes yi jógee à nan ngeen ko gisee. waaw nag di ci kontaan bu baax di ci kontaan bu baax di wax ni lu rafet la di ko rafet lu te xam ne lii dañ ko waroon def bu yàgg ñun aar ñoo ko moom Sénégal hmm. ñoo moom de maa ko wax de fi la aar bi ne fi la neexee xam nga gars yi ñoo ci war a jàpp surtout état bi jàpp ci artistes xam artistes yi seen àq ak seen weleef ñu koy def ñu jàpp ci quoi ñu ciy jàpp. jaajëf jaajëfati dund leen. voilà maa yegg Cuxu. mais Cuxu naka bu. naaj ziar naa la. ci la yëngu yi ñu kërti kërti rek. yéen a ngi waajal. ñu ngi waajal nii man kii naa pare sax. Euh, mais voilà gisee euh, en tout cas ni ñu leen dugalee ci biir euh, yéen jeunes artistes yi. waaw fierté la parce que tey ñun nekk ñu rek ñoo fi nekk ay jeunes artistes bëri na boo demoon ci banlieue bi ay artistes yoo xam te boo yoo xam te boo gisoon tey mooy loolu mais sens la rek bu la yàlla di defal gars yi jël ñu boole na ci sant yàlla la quoi vraiment. alors ñu waa ETV waaw waa Equivox bu baax inspiration bi. nu muy ñëwee ngeen nekk ay jeunes yoo xamante ne macha allah comédiens yi bari nañu mais kenn ku ci nekk ak sa particularité. waaw moo li ma la wax rek xam nga liggéey rek moo am solo quoi ñun saa yu saa yu nu wéetee rek dañuy job euh, xam nga ku nekk da ngay bañ sa morom raw la te loolu concurrence boobu dafa am solo quoi. moo tax job bu tar la gars yi di job job bu metti xam nga sa xel mi da nga ko war bàyyi muy muy muy muy xalaat looy retaan loo nit ñi. waaw waratul campé ci benn côté quoi da nga war a joob xam nga xam ne am ay fans quoi yoo xam te ni ñu xaar leneen ak leneen ci ci waaw moo tax tey waaw mooy loolu quoi ñoom rek ñoo tax ñuy ñuy reyante quoi. mu neex quoi. waaw mu parce que tey boo ñëwee tey def benn kii bu waaw gars yi waruñu la xaaraat ngay kii quoi da nga war a. kii quoi man loolu laa gëm niveau yi dafa war a gën di yéeg gars yi yeneen xalaat yu bees waaw te yi ñu ci quoi vraiment di kontaan ci waaw ci Equivox di kontaan ci El Hadj le grand naanaan la naanaan la sama booy la. man su may caméra damay kontaan ndax da kaar cadré mën nga ñaaw sax mu jël la nga rafet boo xoolee ni ma booyee ni ñaaw naa meluma nii mais bu la jëlee da ngay rafet. merci sa El Hadj aw Moustapha yàlla nga yàlla nga dem Màkka. alors Doudou maa am jàmm. yaa ngi ciy yàlla bu baax. alors Dakar fait sa comédie alors bi mooy deuxième édition bi nan nga ko gisee. Ah, initiative bu baax la parce que euh, c'est une soirée boo xam ne day regrouper comédiens yi Sénégal yëpp ñi nga xam ne saa yi ñoo nekk au top tey ñu dajale leen fii ñoom ñëpp ci benn xam nga loolu moom lu neex la quoi macha allah. waaye hmm. nan nga gisee jeunes yi nga xamante ne euh, ci liggéey bi ñu ngi fël tout le temps nga gis ay jeunes talents et tout nan nga gisee. <laughs> c'est une fierté ah parce que début bi dañoo léegi wéetatuñu comme gars yi commencé nañ fi bëri te bëri talent. Hmm. dañoo amul chance wane ko rek mais tey jii gis nga am na ñu bëri fii ñoo xam ne tey dañuy mën a génnee seen talent wan ko monde bi yëpp. Hmm. parce que le Sénégal a quelque chose à offrir surtout comédie. te gëm naa ni bu gars yëpp développé kamay génn. affaire boobu dina am incha allah. beneen bi moom mooy euh, gis naa la euh, parlement du riir ak euh, benn benn ci jeunes yi langage bi parfois foogoo ni dana xaw a def barrage. langage bi dina dina def barrière tuuti parce que on doit te dire la vérité parce que nekkul ñëppay làkk olof xam nga boo génnee si dëkk boo xam ne français ñuy làkk ba fu làkkee olof gars duñ comprendre mais malgré n'empêche dinañ dugal suñuy mots yoo xam ne siw na parce que olof am nay mots yoo xam ne siw na ko si dugal nànk-nànk mais da koy jë da nga koy jaxase français bi quoi. parce que Youssou Ndour a ngi nii tey waaye mi gars yi ñu koy déglu fu nekk te olof la. nga xamante ne di nga wax lu ñu euh, si da nga da nga koy xam noo koy defee soos bi rek da nga koy camp campal ci biir waaw. noonu la fay demee. également gis nañu euh, euh, people bi mbooloo mi bari fii par rapport ak niñ ko foogee woo lan la ñàkk communiquer la wala lan la bon je sais pas je sais pas peut-être période bu mu tombé la novembre bi ni xam nga yi jàng yi ak yooyu. mais am na ñu fi nekk moom am na ñoo xam ne moom daw nañ quoi parce que ba léegi comédie spectacle yi gars yi des nañ di ñëw en masse quoi mais ñun loolu la ñuy xeex pour mu am. nga xam ne bu gars yi déggee soirée comédie rek fiw daw. mais par rapport ak seen euh, euh, fleur yi comme on a l'habitude de dire seen abonnés yi nga xamante ne dañ dañ di dugal vidéo addina seetaan ko ngeen di def lu ni toll ngeen war fee daje mais foogoon nañ ne xanaa. xanaa xanaa yow ñëwoon Ndour Show <laughs> oui d'accord ah. eh, mais pas forcément yow rek. ah non waaw waaw waaw communication bi nga def ci groupe soo est-ce que bii nii gars yi def nañ ko. bon je sais pas franchement nag xaw ma quoi mais bon. yàlla xam ko xaw ma luy lii quoi <laughs> man mi sax xaw ma bi ngay def nii man ñam mi ñam mi bi ngay def nii laa mel yàlla ma si nattoo rek. léegi ay réponse la quoi. Ah, waaw ah waaw. du merci. jaajëf du baax la.